si man la bëgg naa doon loolu incha allah. allo kon nag mbokku internet yi nga xam ne yéen a ngi suivre euh, seen internet seen arène ngi fii tey si euh, musée des civilisations noires nekk ñu stade Iba Mar Diop ndëgam lii règlement bi laaj est-ce que Reug Reug moom est-ce que Reug Reug euh, li nga xam ne moom mooy règlement bi ñu ngi koy sumil ay yërëm tànk yi fas ba mënta ñàkk fas ba waaw yaa gis waaw mooy li ma wax ku ku xam Reug Reug xamee ko ak ak ak i fas ku xam Reug Reug xamee ko ay butéel yu bëri ku xam Reug Reug xamee ko ay ndombo waaye tey nag gars yi nee nañ ko fas yeeg yooyu nag na nga koo ko bàyyi si na nga ko bàyyi yooyu yooyu moom mën mënta yéeg mënta yéeg mënta dem donc yooyu moom nañ ko fi ba kon nag euh, mu ngi noonu ñu koy càmbar di ko xool ba xam yére yi yaram bi est-ce que amul lu ci niin est-ce amul lu ci taq comme nañ koy defee rek si li nga xam ne moom moom lamb làmb avec frappe loolu xaw nañ ko miin kon nag rëg-rëg a ngi noonu c'est un jour historique parce que pour la première fois moom muy muy muy def li nga xam ne moom mooy euh, euh, MMA ñu koy wax art martiaux mix wala ci euh, ci anglais ñu naan ko mixed mixed martial art donc mooy li nga xam ne Reug Reug a ngi yéeg yéen a ngi dégg public bi mu ngi mu ngi mu ngi yuxu Reug Reug yéeg na taxaw na mu ngi sànni ay ay kurpeñ mu ngi sànnee coupeñ parce que dana ko xam-xam de demoon na fi États-Unis doon entraîné di di waajal combat bi waaye bi bi mu ñibbisee aussi ñi nga xam ne ñoom ñoom ñooy waaj <laughs> GIGN bi nga xam ne moo nekk Fass Mbao foofu la rëg-rëg doon entraîné. mar rëg-rëg ñoo ngi waaj euh, léewato ñoo ngi waaj a euh, sifle combat bi ñoo ngi xoolante ci ay bët. voilà kon nag combat bi mu ngi noonu di démarrer laala la laalante nañu donc ñu ngi noonu ñu ngi noonu di di léewatoo ki nga xam ne Reug Reug mu ngi koy xool di ko ki nga xam ne mooy Reug Reug mu ngi koy mu ngi koy xool di ko yeeru waaye gis nga kii di bukki suuf mu ngi arrière di ko xool moom it di ko jàng Reug Reug padd Reug Reug bul bul dugg ci ci ci padd ak ak ak weqit ndax wóorul def defal li nga mën li liñ la xamee mooy jàpp bëre jàpp bëri gëm naa ne yii yëpp mu ngi sànni rëg rëg sànni na ku Sofiane xaw a feyu waaye ñoo ngi ñoo ngi léewatoo ñoo ngi xoolante ku nekk yaa ngi observé sa sa morom mu mel ni kii di kii di Sofiane dafa bëgg xool xam lan la rëg rëg indi gis nga mu ngi koy cokkaas waaye gëw ma ne li muy def da ko gëm gëmu ko mu ngi cokkaas ki kii di rëg rëg koy cokkaas gis nga ko ah jàpp na rëg rëg jël na ko Reug Reug ji jël na ko Reug Reug jël na ko yëkkati na ko ba ci kaw yëkkati na ko ba ci kaw daan ko waaw lii la ñu lii la lañ ko xamee moom moom Reug Reug lii lañ ko xamee te jàpp naa ne fii da koo jàpp rek ba bañ a ba jàpp na ko ba bañ koo ba te gis nga kii di Sofiane bu gisu am amul amul lenn lu mu mën a def amul benn pexe mu amul benn pexe gis nga mu ngi ciy jéem a génne waaye waaye waaye waaye sofi euh, kii di Reug Reug mayu ko fenn fu fu mu ci génne kii di Reug Reug mayu ko fu mu ko génne da ko da koo rek ci ci ndigg da koo jàpp rek ci ci ndigg gis nga Sofiane mu mu ngi door a mu ngi jéem fu mu wéqee mu ngi jéem a wéq mu ngi dóor jéem a dóor ay coup de mu ngi jéem a dóor ay coup de genou waaye kii di kii di rëg-rëg may ko fu mu naanee ñeex kii di rëg-rëg may ko fu mu naanee ñeex lii nag mooy premier round ñoo ngi war a def eh, ñetti round la war a def round bu nekk am nekk cinq minutes mu nekk quinze minutes waaye nag bu bu amee si si mbër yi kenn koo xam ne dafa am nombu def booy bu bu koy may ndam laataa ñu ñu ñu jeexal ñetti round ni euh, lamb ji da da dafay daal di jeex gis nga ku nekk ngi dóor ñoo ngi dóor ay coup de di ko dóor ci seen biir gis nga premier round bi mu ngi des 7 minutes gis nga premier round bi des na 7 minutes bu doon si kii ñu ñu ne kii mu ngi kii di Sofiane bu ki suuf gis nga wala jeex na premier round bu jeex na at bi ñëw na àtte premier round bu jeex na premier premier round bi jeex na premier round bu jeex na premier round jeex na voilà premier round bu jeex na kii nga xam ne mooy mooy rëg-rëg kii euh, li nga xam ne mooy mooy président bi bi bi mu bi mu bi mu logoon da koo dindi président bi bi mu logoon gis nga ko gis nga ko noonu waaw waaw waaw waaw yëkkati na ko ba ba biir weex rëg-rëg yëkkati na ko ba ba biir weex mu daan ko suuf gis nga gis nga yëkkati waat na ko ba biir weex mu daan ko suuf lii mooy image yi nga xam ne ñu ngi ñëwaat si image yi nga xam ne ñoo fi amoon cinq minutes yu yu yu njëkk yi jeex na gis nga xale bu jigéen bi nga xam ne moo moom mooy moom mooy wane ne round yi ñëw mu ngi wër yore yore ab ab tablo bu ñu bind ñaar di wane ne ñaareelu round bi moom mooy ñëwaat gis nga ñaareelu euh, deuxième round bi mooy ñëw gis nga ku nekk def na li li mu li mu war a def ñu ñu ñu war a ñëwaat ñu ngi war ñu ngi waaj a siffler deuxième round ñoo ngi waaj a siffler de deuxième round kii nga xam ne moom mooy entraîneur u Reug Reug mu ngi wax ak moom di di laal eh, di laal eh, di laal boppam xam naa daf koy wax ne kon na ko daaneel xaw ma am na muy wax ak daal ndaan ko di di laal boppam. kon nag kii nga xam ne mooy arbitre bi mu ngi sifflé waat sifflé waat na kii mooy ñaareelu round ñoom ñaar joxante nañu loxo mel ni ñuy nuyoo nuyoo boo xam ne du du du nuyoo. waaye waaye dafay wane ne dafay wane ne komba bi mën na mën na door effectivement ñaareelu round bi door na ñu ngi si. ñu ngi si rëg-rëg moo ñu féete gis nga ko rëg-rëg de ko foo mu daanu rëg-rëg de ko foo mu daanu rëg-rëg nga koy dóor rëg-rëg nga koy dóor rëg-rëg nga koy dóor rëg-rëg de ko foo mu daanu mu ngi koy dóor rëg-rëg nga koy dóor gilo nga koy dóor mu ngi koy dóor mu ngi koy dóor bu doon ba box bu ne dafay kawo rëg-rëg nga koy dóor rëg-rëg nga koy dóor rëg-rëg nga koy dóor ma ngay daw ma ngay adhère rëg-rëg nga koy dóor rëg-rëg nga koy dóor rëg-rëg nga koy dóor rëg-rëg nga koy dóor mbaa du ko rey daanu na suuf daaw na suuf waay waay kooku mooy Reug Reug gis nga ko gis nga ko noonu dafa mel ni combat bi jeex na Reug Reug da koo dóor da koo daf koo attaqué dóor ko ay ay ay ay kurpeñ gis nga ko kii mooy Reug Reug gis nga ko Reug Reug yegg na ci kaw ci kaw Reug ci kaw gis nga mu ngi noonu gis nga ko yéen a koy gis donc Reug Reug yegg ko combat ba jeex na ñaareelu ñaareelu round bi sax jotu la yegg gis nga Reug Reug mu ngi noonu mu ngi noonu di di di di di wax ak ay ay ay supporteram Reug Reug mu ngi mu ngi noonu di wax ak ay ay ay supporteram mu ngi wax mu ngi wax so so son public combat bi jeex na combat bi jeex na combat bi nee na man la affaire bi man la gis nga wàccaat nañ suuf waaye Sofiane mu ngi noonu dafa mel ni daal ay bidéo bu bu bu bu jëkk la doon gis say Reug Reug de de ko yéen lu lu mu lu mu antanul mel na ni Reug Reug de koo yet lu mu antanul gis nga ko ko combat ba jeex na ci ñaareelu round bi bi minute bi ñaari minute beegul sax ñaari minute ci ñaareelu round bi la ko la ko kii kii di Reug Reug daan kon nag nga gis ne yeggunu trois trois round yi sax jotu la jeex alors euh, Reug Reug ko yen ko lu mu antanul daal di ko daan kon nag Reug Reug wane na fi ñaari facette wo Reug Reug wane na leen ko xamee woon muy bëre Reug Reug wane na liñ ko xamee woon muy mbapat waaye nag wane na beneen astuce si moom parce que ay ay ay pat ay ay weq de da ko fi def dóor ko dooru métti métti métti sawaay arrière waaye ko comme fi amul ay ay saaku kenn kenn mënut a génn waaye ay rig la gis nga juróom ay saaku la ñu ñu nekk génn na waaye mu mënta génn donc da da doon génn mu mu daw da da daal di ko dàqe door ko du door yu métti yëkkati ko ba ci kaw fëgg suuf kon nag ko combat ba jeex na kon nag gis nga ko ko Reug Reug daal di gagné premier combat combat premier combat bi mu am si gis nga ko ci jël na drapeau Sénégal Reug Reug jël na drapeau Roog Roog dégg ngeen ko kii yore micro bi tamit nee na rëg rëg kon nag rëg rëg a ba jeex na combat ba jeex na combat ba jeex na rëg rëg daal daal di na ko daan waaye adversaire am te te na ci ci loxo daal ko yëkkati wane wane moom la affaire bi moom la affaire bi rëg-rëg la loolu la kii di Sofiane Boukissou wax kon nag bu ko Sofiane Boukissou waxee fekk fekk fi Sénégal wax ko ñun waa Sénégal ñun tam ñu wax ko mbër wax ko kon nag loo loolooy dëgg gis nga loolooy dëgg waaye fa mu ñëw am lu mu wax fa mu ñëw am lu mu wax nee na il faut mu am ku ñëw pour pour mën a jotali parce que rëg-rëg déggul déggul déggul français kon nag faw mu mu am ku ku ñëw ku ñëw taxaw mën a toog mën a mën jottali li nga xam ne mooy ay kàddoom gis nga ko ñu ngi koy laaj ñu ngi koy laaj ñu koy laaj ñu koy laaj ñu ngi koy laaj I'm going na mu ngi ko bëgg a làkkaloo anglais mu ngi ko bëgg a voilà leyte ngoog kii di leyti leyte ngoog leyti dégg na anglais dégg na français dégg na séeréer dégg na wolof kon mën na kii mooy leyti seen moom mooy agent Reug Reug kon finalement moom mooy ñëw su kii di wax anglais mu koy jottali su Reug Reug di di làkk séeréer wala wala wolof mu koy mu koy mu koy mu koy translate en anglais